stade donc man pour man étape par étape processus bi dafa réversible aussi. donc euh, encore une fois noonu rek la mën a demee. mais est-ce que wax par exemple que yow tey am na produit boo xamante ne bu manqué ci yow doo génn par exemple euh, boo amul faa doo wala gloss wala. Euh, non man nag man nag man nag mën naa génn. Mhm. man yàlla def na ni produit bu ma amul su ma nee est-ce xam nga ni su ma neexee sax sa la mu génn. man euh, loolu moom téyewu ma téyewu ma franchement ay produit boo xam ne su ma ko manqué du ma génn non parce que góorgóorlu naa ba nga xamante ne ne que kanam bi maa ko moom fomp naa ko ba du am benn tâche mhm. kon lu ma ci teg rek bénéfice la d'accord en parlant de fomp hmm. yow léegi ban produit euh, yan démaquillant ngay ngay may suñu téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ni seetaan waaw bu ñu mën a dindi hmm. mun nga bañ a tudd marque ma juste ay conseils yoo leen di jox waaw ñu mën a dindi seen maquillage euh, dindi seen maquillage defe naa ni loolu maa ngi yaa ngi wax déjà place ñoom Khady Niang ñoom Mado ak ñoom Fifi maa ngi leen di rend hommage encore une fois ñoom ay esthéticienne lañu mais man le B.A.B.A le B.A.B.A am euh, lotion booy nettoyer lotion mousse pour nettoyer à base de ndox. Mhm. booy nettoyer sa kanam soo paree jël sa disque démaquillant def y tout une gamme xam nga bëri na. bu lee bëgguma leen citer nga démaquiller wu sa kanam soo paree am na ay crème. aussi bien crème de nuit que crème de jour yooy teg ah su dee guddi su dee bëccëg yooyu yëpp pour nourrir sa peau mm. am na ay anti cernes yoo xamante ne mm. à partir de vingt cinq ans déjà xam nga nit ñi dañuy bàyyi ba cerne uyu si alors que normalement à partir de vingt cinq ans war nga di teg ay anti euh, pattes d'oie c'est des pattes d'oie là les trois trucs là on les appelle les pattes donc ay anti rides ay anti cernes yooyu yëpp yoo xamante ne ne que war nga ko teg ah euh, euh, ay produits yoo xam dafay tax doo am ay ridules. parce que jigéen am na ay ridules autour de la bouche autour des yeux tout ça ay ay préliminaires yoo xam ne dès vingt cinq ans war nga ko commencer donc c'est des produits yoo xamante ne ne que war nga ko am chez toi. ah yu demee noonu daal yeneen yi bagages une fois par semaine nga nga gomewu selon ce type de peau aussi parce que y a des peaux qui sont des peaux a problème ak ñoo xamante ni seen peau duñu peau a problème donc yooyu yëpp selon gommage beeg ak forme gommage yi dafa bëri ah même yaram dañ koy gome même am na euh, benn jour de la semaine wala deux yoo xam ne war nga def sa ay sel de bain dugg dugg sa biir sa sa biir sa biir sa biir baignoire def ay sel xam nga defar sa ay kii y a même des pétales yoo xamante ne ay pétales de rose yooyu def ak tonton kenn du ko fàtte non boobu moom domaine boobu moom <laughs> bu ma yëngal <laughs> voilà ñu ngi koy nuyu au passage alors maman ce que je propose nañ dem seetiwaat Khady Niang euh, parce que am na ay conseils yoo xamante ni fait maison defal nañu ko ngir suñu téléspectateurs yi mën a kontaan nañ dem seeti nañ dem seetaan Khady ah. ndax moom bagage su la ay Khady ñëw rebonjour mesdames maa ak trucs et astuces comme ni ko di Degene waxee jigéen saa su ne foog muy defaru di defar yaramam ci biir këram di def ay pédicure manicure soin du visage moo tax ñu créé leen rubrique bi pour di leen wan au quotidien yi ngeen mën a utiliser pour defar seen bopp yoo xam ne jarul sax ngeen di génn ndax mi ngi seen i biir placard wala seeni biir frigo tey nag li ma leen indil mooy benn démaquillant spécial li may utiliser pour démaquillant bi mooy benn concombre benn yaourt ak ay disque démaquillant

xam nga gis nga astuce yi koom-koom bu ci marché bi soo téyee benn bu fukk ak juróom. dëgg la dem defar gis nga yawur euh, gis nga ko soow yi rek. defar defar defar yooyu encore une fois. d'accord donc ñu ngi koy féliciter nee naa li ma neex daal mooy lépp a ngi TFM. noonu la waaw <laughs> lépp a ngi TFM yow tam yaa ngi ci biir TFM. Mm-hmm. yaa ngi ci biir wareef. Mm-hmm. yaa ngi nag ci biir émission seen Sañse. Mm-hmm. gis naa weyi maman. yow nit ñi dañuy def pause we yow nga def we def tànk waaw. <laughs> yii yëpp Mado la. mais <laughs> moom Mado je crois que war nga wax loxo jigéen am solo. dafa a mm. raffiné. waaw waaw waaw waaw waaw dafa war a propre am na nag ñoo xam ne soxla soxlawuñu pose wee sax nag. Mm-hmm. franchement mm-hmm. ah euh, pour que mu mu mu harmonieux. Mm-hmm. l' essentiel li nga wax rek na set. na set encore une fois mais xam nga euh, li may wax rek euh, bagage yi li ci neex ba neex mooy teg ak teggi la donc teg ak teggi su ko laajee rek ñu teg ko. suñu ko soxlaatul rek teggi ko. Mhm. encore une fois euh, defe naa daal euh, euh, lépp lu jigéen di mën a def daal ci yokku taaram. Mhm. te du ko yàqal jaamu yàlla rek nañ ci jéem a def teg tegg la daal. teg a teggi fête neex na kon xanaa ko bi boo ko teggee dama koy jël léegi nii. waaw lii ah, waaw lii lii suñu paree ñu jox la ko waaw lii du dara suñu paree ñu jox la ko franchement ah te yaa ngi wax affaire u fête des mères bëggoon ci profiter Euh, ndaak pour rendre la hommage yow tamit ah les jeunes mamans tu es mère ah te yéen tamit yaa ngeen di allier seen liggéey ak ak ak ak ak euh, en étant encore une fois maa ngi foon sa doom maa ngi fóon sa yaay ah di rendre hommage à toutes les mamans du monde à encore une fois surtout rendre hommage euh, aux femmes qui n'ont pas eu le bonheur d'être maman c'est très important ci fête des mères bi maa ngi leen di rendre hommage bu baax pour moi dëgg la il ne suffit pas jur doom pour être maman maman waaw waaw ah, wax dëgg la dégg nga sànq Mia maman Déguène dëgg la dëgg la tey tey. Mhm. Adja Déguène Chimère nañuy invité. Mhm. kon lan ngay wax ci loolu. waaw xanaa sant yàlla ak di leen remercier. Mhm. xam nga maa ngi doon wax ne nekk télévision Futur Média c'est une grande famille. ndaak euh, te respect bi ngay xamante ne ne jox ngeen ma ko loolu ku mu doyul dara dootu la doy. du ma dégg lu dul maman loolu pratiquement depuis ba ñu dooree ba léegi inauguration bi ba léegi maa ngi fàttaliku jour bi ñuy def inauguration bi weeru koor la woon. Mhm. maa ngi toog yow yaa dem y avait au moins 1000 personnes. te yow yaa dem indil ma lu ma dogee. ah te ñu ngi doon doog a gisante. respect boobu cofeel boobu ku mu doyul kenn dootu la doy mhm. loolu mooy dox ba léegi ku ci gis rek yaa ngi xool ci foowu bëtam cofeel te bëggante bi respect boobu moo tax man nee naa maa gën a njaboot ci monde bi mhm. encore une fois kon fête des bi dama leen di ko delloo dama leen di ko delloo di leen remercier aussi parce que maire yi bëri na maman yi bëri nañu waaye xëy na man mu ñàkk solo mii ngeen tànn ah ci bés bi pour pour pour pour lii encore une fois mais dama koy delloo askan wi dama koy delloo askan wi te tamit di nuyu sama yaay mhm. yaa Haja Kamara Jibi Anta Boy mhm. maa ngi koy nuyu parce que sama papa bi mu gaañoo ba léegi def na 22 ans ah mu toog rek ah ngànkuñu ne muus ba ku ci ne di jéem a mën dara <laughs> kon dañu koy ñaanal yàlla ñor di fanam bu baax wéral cëram encore une fois mm. alors ma tey boo fi teewee tamit fête des mères nañu wax mais tonton ci la bokk mm. xanaa rek noo koy euh, ma bàyyi la nga remercier ko remercier tamit ñi nga xamante ni mm. ñoom nga bëgg a remercier sa biir xol waaw xam nga man tonton kilifa gi laa koy woowee coucou papa waaw <laughs> waaw euh, nuyu ko nuyu ko sama kilifa la sama papa la sama xarit la sama sëriñ la. ndax bul fàtte ni dama jébbalu ci moom man ni nit di waree sëriñ di dem di jébbalu ci moom man sama borom kër laa jébbalu. donc euh, parce que parce que parce que parce que yu bëri ah man moom laay tàllal sama loxo mu may ñaanal on rapport yi ñu am du lu nit mën a comprendre. Mhm. ah du nit mën a comprendre taalibe la taalibe Sëriñ Tuuba bu wér. ah euh, fatubakàlla macha allah ñuy jéem a nag di dox ci yoonu sirata mustaqim moo tax man bañ naa ko ba kilifa gi laa koy owee mhm. maa ngi koy réitérer encore une fois sama sama taalibe mhm. sama taalibe laa koy wax ndax amour dafa tuuti waaw waaw amour lu ndaw la ci par rapport ak li nga xam ne moo nekk sama diggante kilifa gi mais saw naa la jonaay ba maa ngi lay remercier di la sargal di la ñaan suñu borom bi nga yàgg ci kanamu njaboot gi mhm. encore une fois ah kon daal na lépp dëgg la kon boog ñi amagul jëkkër nañu roy ci loolu ah sama genre gi man mais mais bëgguma ah. ngeen am jëkkër de man ah. bëgguma ngeen am jëkkër de sëriñ laa bëgg am sëriñ waaw macha allah jëkkër dafa de ah, waaw sëriñ sëriñ ngay am <laughs> waaw <laughs> Euh, sànq yaa ngi doon nuyu koo xamante ni Binta Bakhoum la. waaw dama ah, koy rendre hommage xanaa ma ñaan sama réalisatrice ñu rendre ko hommage parce que maman li ma sol. waaw moom moo ma ko jox sa sœur. Ah, waaw si parce que Biba Fashion. tout à fait mi ngi continuer mi ngi continuer ba tey te ñu ngi nekk fi nga xamante ne mooy virage. ah euh, ça ça me va droit au cœur. yàlla leeral bàmmeelam. amiin suuf sedd ci kawam. amiin ñu koy naan nag bonne fête des mères. amiin à tous ses enfants. amiin amiin man bi may tudd Binta xalaatu ma woon sax ne moo la. dëgg la dama doon bàyyi ba émission bi. ah ça c'est très fort parce que maa ngi doon wax ne ku ma marqué la. ci yaram voilà l'émission tire à sa fin mesdames et messieurs je vous donne rendez-vous dans un mois ci yeneen i sañse di remercier nag waa Hôtel Fana merci à Khady merci à Mado et euh, à vous aussi mesdames et messieurs euh, yéen ñi nga xamante ne depuis sànq yéen a ngi seetaan émission sañse ak taa déggan bi moom waxuma que du am bu bu dàq bi dina dina jafe trop je donne rendez-vous dans un mois au revoir et bonne fête des mères et bonne fête des mères à toute ma famille à ma maman et à mes tantes chéries au revoir merci Ndak merci